yàlla dimbaliwaat ma terrain bi mujj maa jëlaat billet retour bi mi ngi nii man ak sama soxna sii di soxna Mariama waaw moon terrain bi lool moo tax ma daw ne kenn du ma ko nett di tamay gone Thiès te ku xam Thiès xam kook saxaar ginnaaw yàlla yonent bi saxaar a yor Thiès kon waa Thiès nañ fonk lii bu leen ci kenn jiitu nañ ko fonk te xam ne seen ala loolu moo tax ma daw ñëw eh, ànd ak sama waa kër fi ne ale bi maak sama soxnaa deman retour bi yëpp sama waa kër saxaar gi lañ biñ ma déggee sama waa kër ñëpp saxaar gi lañ jóg lañ ñëwee waaw kon daal yéen it leen di sant ndax yéen ñi yéen a bu dul woon yéen a saxaar gi du àgg fi mu àgg kon yal na yàlla taxaw leen yal na yàlla barkeel leen yal na yàlla sàmm leen ngeen baal ñu ah bala ñuy wax ci retour bi ci retour bi dañuy wax si aller bi ndax ñu dañ dem aller retour la ñu def ah, en première classe 7000 francs le ticket macha allah c'est abordable kontaan nañu wagon yi c'est climatisé macha allah. amuñu benn kii bon y avait des détracteurs yàq xol nit ni que raay <clears throat> ñu ne raay yu wóorul ak yooyu dara mais macha allah dem nañu train yi dem yëpp dem nañu dellu si y a pas de problème ñu ngi sant yàlla vraiment vraiment on est très content bon ñu wàcc ñëw ñu accueillir ñu jox ñu ñu naan jox ñu ñu lekk macha allah vraiment amuñu dara lu ñuy wax on a rien à dire sinon dañu bëgg rek affaire bi pérenniser wu gën a gën a élargir def ay Dakar Saint Dakar Dakar Saint-Louis bu dem ay yeneen région yi vraiment dina dina baax si ñun on dañ ko nam mu dañ ko namm lépp lu ñu si doon tiit amul amul lépp lu ñu si yàq suñu xel ñu dafay am ay ay yu bon ak yu kenn xaw raay yu wóorul waa benn la c'est euh, kii am na am na am na bu 4000 am na bu se ah, macha allah ñun nag demuñu si àll bi retour bi rek lañ dem retour bi rek lañ ñëw moo tax te ñu ngi duggoon euh, deuxième classe macha allah dëgg yàlla voyage bi comme niñ ko xalaatee woon noonu la demee mais nag am nañ tam lu ñu xam ne neexuñu mooy ndax ñun wagon bi ñu duggoon amul ventilation waaw loolu neexuñu waaw loolu daal moom lañ ci déploré di kan a xar naqarlu ñu gën a defaraat daal ba mu gën a baax. waaw ñu gën see góorgóorlu rek yaatal ko ba mu gën a yaatu si yeneen bërëb yi nga xam ne nit ñi dañ. waaw neex torop macha allah tabarkàlla maa ngi jógee Tiwaawan man nag taalibe Cheikh la waaye damaa bëgg Serigne Touba. doo sama doom bi maam Cheikh Ibrahima Fall lañ ko tuddee moo tax chaque màggal damay màggali train bi daal jàmm rek laa ci gis macha allah tabarkalla tey laa ko mos a jël bi may dem oto laa jël bi may ñëw daal fi ma dal ak gaar bi benn la macha allah tabarkalla tubaar macha allah VIP laa jël macha allah euh, kilim bi daal 7000. jar na 10 000 vraiment macha allah amuñu benn problème ci yoon wi ñu ngi fi départ midi egg si ay 3 heures xam nga loolu neex na macha allah daal ñu ngi ñaan ci yàlla daal yal nañ ko yàgg a at yu bari yàlla defal sutura mm, képp ku demoon rek. ak yéen ñi ñuy filmé yëpp yéen it jàpp ngeen ci liggéey bi. ah su ma sañoon moom ñu arriver ba Dakar. waaw mais à part leen loo xam ne leen ci biir terre bi. dara méttiwu ma lépp neex na ma tarkala macha allah. dëgg yàlla moom daal fi mu toll nii sa kaw sa kanam si lu baax li mu liggéey yéex na koo def. yokk ba yëg ko lu ñu yàkkamti woon la dañ daan xat-xatloo ci oto yi dañuy wàcc dox dem du sunuy kër ndax dañoo jigaraay man R100 laa jóge gaal bu ndaw. da ngay wàcc waaw bu ma yeggee Touba gaar bu ndaw laay dal da ngay dox dem sa kër sonn ñu ci oto yi sonn ñu fenn yéeg bi nii c'est bon daal laa ci xam. bi maanaam ba ngay dem Touba moom la jël. ba moom laa jël dem moom laa jël ñëw naka jekk moom laa daan dugg bi mu bàyyee laa ko bàyyi. mu ñëwaat ma dellu siwaat te duma ci bàyyi mukk ndax at mu jot ma màggal yàlla na leen sëñ Fallou Faye ndax ndax gisoo si ay jafe jànko jànkuwantee leen si ay jafe-jafe déedéet déedéet bu njëkk daal la métti woon waaye nii moom métti bi comme ban ko de xam nga bu njëkk bi ñu daan yéeg buuxanteeg yooyu léegi loolu amatu ci da ngay dagg sa billet ndox dugg normal ñu teg la fi ngay toog yàppale la say bagage doo sonn benn yoon déedéet ñëpp a toog ñun sunuy xale sax dañ leen a daggal billet ñëpp a toog ñoo daggoon yóbbu sunu kër toog ba jour bi ñëw ak heure bi ñëw dugg dem bi ñuy demeet bi ñuy eggee tuubaat noonu la ñu defaat duggaat ñëw tey tey jii looy wax DG Samba Ndiaye moo euh, projet grand bu Sénégal xanaa mu gën a yokk rek mu dëgër ndax ñun daal train bi lañ am moom la ñu mas di dugg ba muy metti ñuy yéeg ak a buuxante ba tey mi ngi ne yaa ngi yaa ngaaral ku ne dugg paas bi méttiwul ndax sañ Touba jaral nañu ay million lu mu ñu daggal rek dinañ ko fay dem màggale incha allah bu soobee sëriñ Fall.